salaamaaleykum Sénégal actuellement suñu équipe nationale Sénégal bu ndaw bi Tunisie lañ am demi final te gis ngeen yéen ñëpp ni Tunisie jamono ji ni ñuy def noir africain yi actuellement démb ak tey ñu ngi commencé taal xam nga dañ doon génne yamoon ci si génn xam nga may doon annoncé ne Tunisie ni muy doxalee nii buñ ci demee ba ci kanama tuuti noo dañ leen di commencé taal te xoola noonu lañ commencé def video yi mu ngi sama compte sama story Instagram Pa Assane Gueye la nekk. mais jamono ji suñu équipe nationale Sénégal u bi ba ñu gagné quart de finale bi actuellement Tunisie lañ am demi finale mu doon match bu essentiel dama bëgg lii ñëpp partagé ko booy mën cee jot Sénégal njaay mën cee jot te xam na ne Afrique ñëpp noir africain yëpp ci ginnaaw Sénégal u bi gis naa yenn poste yoo xam ne ni ñu poussé Lions yi à ce que ñu fexe la tout ba gagné Tunisiens yi toroxal leen ci biir terrain bi. def seeni poster wan leen ne ñun noir africain dañoo fier ci li ñu doon ba pare ñu arrêté li ñuy def noonu waaw kon nag booy Pape Demba Diop Samba ab Pa jaalo Diallo du Diop yéen ñëpp maa ngi leen di ñaax te yàlla tax Badji ci bi teg leen ci seen bakken bu leen ko football pour senegal kase mais football leen ko pour noir africain yëpp nag jamono ji ñu Tunisie yi di def noir africain yi tunisien yi actuellement ñoom la ñu am demi-finale yàlla nag dafa mën a leeral ay mbiram. yàlla na ko jaarale fii ñu wan leen ne ne nit kenn du ko toroxal toroxal leen ci biir terrain bi toroxal leen bu match bi jeexee s'il vous plaît booy lu ngeen doon football benn tey football leen ko junni te xam ne ne ñu ngi toroxal seeni doom ak seeni frère ak seeni rakk seeni mag seeni papa fële ca Tunisie ñi ngeen war a dajanteel nii te defuñu leen dara di leen rey vidéo yi may seetaan wallahi lazim di taal ay nay noir africain benn femme dañ ko dóor fii yëpp toj billaay wallaay tey journée bi bu ngeen xoolee samay vidéo ngeen xam ne ni kii xoolam neexul da ngay saraan vidéo yi sarongo ñi di génn am na koo xam ne day toog di saraxu di ñaan pour ñu jàppale leen seen ambassade yi seen indil leen indil leen jël si leen indi leen mais nañ leen jàppale am na sama benn frère bu fa nekk sama benn bro ñu naan ko papa ba léegi déggu moo xama ci lu mu nekk te gars yi ñu leen di toroxal di taal seeni appartement billaahi wallaay vidéo yi ko bëgg saan sànni dama sama story Instagram boo ko bësee dina la indi yóbbu directement ci waa ji dugal vidéo yi mais non mais boo ko dugalee fii TikTok da koy dindi mais mat ci Sénégal bii nii noonu nañ ci teg suñu bakkan nañ ko partage ñun ñëpp booy jot ci ah dirigeant yëpp jot ci te xam ne ñu ngi toroxal sunuy sunuy mbokk fële nañ ko fayu fii premièrement xaar leen ba Côte d'Ivoire ba ñëw kaan bi di ñëw laay naar yi actuellement yàlla ma yàlla jéggal naaru tunisien yi sax boog laay wax. yàlla ñu yàlla teg ñoom non sama xol bi dàgg na quoi vraiment.